ah namoon nga tooyal xaftaan. waaw gannaaw ba mu sant yàlla julli si yonent sant sama ñaari waajur sant euh, sunu xalifa général sëñ Bay si Mansour di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi te wér santaat sama sëriñ maam Malick si mu sëñ Mansour santaat sama xarit sëriñ Babacar si yàlla yàlla yokk ay leeram bu baax baax. professeur de Lansar lañ la booleel. combat bi naka la demee noonu ba mu daal di sotti. waaw euh, xam nga ndaanaan rek mooy bëreeg ndaanaan la. waaw mais man tamit yéen ñi yéen yéen journalistes yi ak amateur yi man lan laa quoi waaw man lan laa. non daanaan nga mais moom niñ ko bàkkee donte sax. Euh, dañu ne toog na lu yàgg bëriwul tamit. waa dañuy waaw ndaanaan la waa gis nga ndaanaan ndaanaan da koy daan te Tidiane yàlla baax na. man ni nga doon naagoo doon naagoo waat. yàlla baax na. yàlla baax na mooy la. waaw mooy maanaam gars yi da nga ko bàkkee moom la professeur. man man maay Alioune Sèye Junior. ndaanaan waaw waaw yàlla yàlla baax na ndaanaan ndaanaan na koy daan te te takk tàkk dina bëri. ay ay jinne bu ñu bëri tàkk-tàkk dina bëri. voilà nee nañ sax nee nañ sax si combat bi mu taxawee nee nañ loolu rek moo ci mën a génne Alioune Sèye Junior. waaw raag ba naaw. waaw mais lépp mun naa ne man maa ngi ci ginnaaw sama grand frère rek ku ci mel ni sama costaud maa ngi ko nuyu